kuy bëri ci te bëggoo mbër mu am doole mu toll ni yow wala woo yaakaar ne moo la ëpp doole ñemewoo. doo xam fu sa doole toll yi. mais justement ñemewuloo dangaa ngaa ñemewut. Hmm. loolu yëpp coow li loolu la mais nag li yëpp dafay jeex parce que réew mi mënut a continuer nii. d' accord beneen propos bi c'est-à-dire euh, euh, boo xam ne quand même euh, nekk na propos yoo xam ne c' est te un leader. Euh, sans juger ou en tout cas sans faire de remarque un leader waroon na ko éviter pour tenir ko mooy soit ma rey président de la république wala mu rey ma loolu nu ñu ko mën a comprendre est-ce que d'une manière brute lañ koy comprendre wala est-ce que am na ginnaaw. foofu daal. man je laisse libre cours à l'interprétation de tout un chacun de tout un chacun libre cours. Mm -hmm. à l'interprétation de tout un chacun man lo laay wax et je dis au président Ousmane Sonko merci. d'être là. Nous ne le remercierons jamais assez parce que kii a sacrifié presque toute sa vie dernièrement, ces 8 voir 10 dernières années, pour que les Sénégalais puissent le Sénégal. boo ko observé de près, tellement il n'a presque plus de vie, il ne vit que pour le Sénégal. Et on nous dit que cet homme-là, il ko été on nous dit que cet homme là ko war a éliminer dans l' espace politique on nous dit que cet homme là il est violent on nous dit que on nekk teg ko ci kawam teg ko la ñu moo dafa doy. d' accord maintenant mhm. lu d' accord balaa ñuy ñëw ci beneen dossier bi nga xam ne war na ko yóbbu tribunal le 2 mhm. février. journaliste nga. Mhm. Euh, tenir na des propos à l' endroit des journalistes pour leur demander ñu éviter di inviter xam ne bu ñu leen invité lu ko neex lañ koy wax et cetera et cetera euh, beaucoup de journalistes se sont est-ce que day artu wala dafay menacer wala lu mu doon. <laughs> non xam nga foofu avant moo wax ci loolu. dafa remercier journalistes yi rafetlu seen liggéey bien sûr. jox leen conseil en tant qu'acteur mm-hmm. politique. tout simplement da leen remercier ci liggéey bi ñu def parce que yow tey jii nii. Sénégal 7 teg na le discours du président Ousmane ce jour-là. peut-être tardivement parce que problème mu connexion te xam ngeen. na fa demee la ngeen programmé woon amul. <laughs> ñun la ñu woon mm-hmm. amul. benn organe. boo xamante ne yaa ngi sur internet boo xamante ne amoon nga la possibilité de la nga programmé woon rek nga exercer ko tout au long de cette journée. on avait programmé du gros. parce que tout simplement jàllul. Mm. loolu ngeen programme que ça soit du gros et du très gros. Mm-hmm. ko defee. mais pour l'intérêt du public pour sénégalais yi mën a seetaan malheureusement mu jàll loolu mais dañ koy rafetlu daat ne nag vraiment c'est très bon mais aussi la responsabilité du journaliste daf ci bokk nag kiy wax ci sa média yow tey jii nii man su ma waxoon wax bu ñaaw amaana di nga ma artu di nga ma ne ah Sadikh nag loolu waroo koo wax parce que sénégalais lañ waxtaanal wax ji dañ ko war a wodd dañ ko war am nuñ ko waxee noo tàmbalee émission bi ay kàddu yoo xam ne président Ousmane Sonko wax na ko nga bëgg ñu interpréter ko est-ce que yaakaaroon na ëpp na wala si wala sax c'est parce que loolu mooy sa responsabilité en tant que journaliste mais ñaata yoon Abdou Khadre day gis dans ces en ligne ñuy saaga et même dans ces médias yi nga xamante ne sont des médias kilifa goo xam ne koo xam ne nee na kilifa la lu ne nga yàq ko ci kaw euh, Ousmane Sonko du jeex du xaaj en réponse tu boo demee dans les réseaux ñu ne xoolal seen xale yi ñoo ngi saaga loolu mooy le problème ñoom dañuy dem ci médias wax lu leen neex parce que ils ont accès ñee seen xool jeex ils réagissent de façon xara xara xara wax bi eggul dafa wax boo ko déggee fa ra ñee seen xol jeex ñu réagir de façon très brutale parce que la jeunesse c'est deret du tàng la defee lu ko naqari day réagir cautionné wuñ ko mais loolu moo jur li yëpp nag lii yëpp dafa am fu mu tàmbalee xam nga parfois dañuy xool conséquence bi sans xool li nga xamante ne moom mooy cause bi mais cause bi mooy lii yëpp ñu teg ci kaw gor nit ñu du ko muñ joxu leen la possibilité de l'exprimer et quand on n'a pas une possibilité de l'exprimer de façon verbale da nga koy exprimer par plusieurs façons loolu moo jur lii loolu moo jur situation bi nga xamante ne moo xew. non en réalité même un fait boo ci d'accordul pour peu que tu sois intelligent que tu sois rationnel il faut que nga jéem comprendre l'existence de ce fait nga xam ne lii lan moo ko waral c'est-à-dire que xanaa xamoo ne nit ki nga xamante personne les médecins ne veulent que personne am am sida mais ils ont essayé d'expliquer lan mooy expliquer ba nit mën a am sida de la même manière fee boo xamante ne boo amee dans la société dinañ nakat fee bi lan moo ko jur fan la jóge te fa mu jógee mooy une injustice yu teg ci ay gor jàpp ne ñoom ñoo am doole lu neex ñu def ko Est-ce que cette démarche-là d'insulte, insulte, il faut le constater, pour affaiblir le leader Ce que je sais dans ce pays-là, oui. ce leader-là, ce dimanche-là passé, sans donner un franc des Sénégalais de tranches d'âge différentes ñëw nañu wuyu ko quand on parle lu koy affaiblir kii yaakaar naa ne fi mu ne nii justement li tax gaa ñi bëgg na du dem hmm. càmbar nañ ba càmbaraat ku ci dem ak moom élection mu yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf xam nañu ko ñu ne kon ba mu dem waaye c'est peine perdue. nous ne l'avons jamais assez dit c'est peine perdue. au-delà du combat confrontation bi nga xam ne nee ngeen dañ koy def. lu ñu pare pour def ko yéen pare ngeen lu raw pour défendre votre leader. boo dégloo ñu suñu discours on n'a jamais dit que dañuy confronter ak ñoom. on n'a jamais dit que. ñu baax non c'est important. dama ne dañoo ne. am na foo xam ne buñ fa bëggee yegg duñu ko nangu loolu buñ ko buñ fa bëggee yegg dinañ jóg bañ. mooy lan précisément mooy justement mooy jéem a éliminer cet homme là. dem au. Euh, éliminer cet homme là on l'accepte pas les sénégalais l'acceptent pas Abdou Khadre yaa nga woon Kër Massar boo fa nekkul woon itam ña fa demoon wax nañ la ko wala gis nga li nga xam ne moom mooy euh, image yi. Mhm. ku fa demoon li nga xam ne ñii am na loo xamante ne mënatuñ koo nangu. mais gis nga ay gor yoo xamante ne ay magi jëm yu taxaw di jooy parce que sénégalais moo bëggul injustice gis nga émission bi bu jeexee yow au fond de toi en suivant sax am na lu mu def ci yow loo xam ne xam nga ne loolu xamal la lu mu def ci yow lan hmm. mooy le côté humain de Abdou Khadre et c'est ce côté humain là qui est le côté humain de tous les sénégalais qui suivent cette affaire là et qui savent que c'est de l'injustice de l'autre côté ku ci gore tuuti soit dangaa noppi parce que daa am lu ñu la téye nga bañ ñu teg la bu na xatal la ba sañoo wax waaye ñi ci asseegu dese ak ngor tuuti xam nañ ne lii ëpp na moo tax ma ne la am na loo xam ne nag dafay dakk te incha allah dina dakk mm-hmm. alors euh, bàyyoo moom ma continuer question bi mais euh, pratiquement euh, tontu nga ci mais ñu wax ci beneen dossier boo xam ne mm-hmm. euh, boobu aussi yéen a ngi koy minimiser mm-hmm. mais peut-être c'est un dossier qui pourrait être beaucoup plus dangereux mm -hmm. que ce dossier qui a démarré en mars en février 2021 mhm. muy le contentieux bi nga xam ne moo dox diggante seen leader Ousmane Sonko ak euh, le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang au sujet du rapport de l'IGE l'IGF etc etc d'abord sur ce fait là IGE IGF Sonko IGF. Mhm. c'est ça c'est le rapport de IGF. Mhm. Euh, mais Sonko euh, bi muy euh, daf la remarque si épinglé bi ñu épinglé Mame Mbaye Niang il a parlé